te lolou ku dem ci worom xam-xam ñam dëkk mën nañ ko ko léralal yàlla mën na jéggal yu ndaw yëm xamul digënté tusbaar ak takkusaan noona diggante takkusaan ak timis nona digënté timis ak gé nona digënté gé ak julik suba wayit nona julik suba watit noona waye non la amé ci digënté wéru koor ak morom jëyit ko xamné woro na daw wéru koor waa ngi di juk mu fess ko yéné wor bu ca amé won bor fay nako ko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 bunti asaman yep day ubbiku waye bunti sawar yep day ubbiku bunti asaman yi may bunti aljanna ya rek manam nit ki def lu ko yóbbu aljanna lu yomb la waye li tax mu ne dañu buntu sawara def ca lu nit lu yóbbu ni sawara warna mana jafé a bi ndax lu ca way def dañ koy ful gannaaw ful ga namuy toll yalla rek ko xam kon def ca lu yóbbu nit aljanna yomb na lol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 نانا جنينا حديث بلاقي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به دال نكور تي بوبام باك لا باك موي لي خاركا دا نيور بو ديك يور لو ملني اب لايو سو تياوي جاسي با نكو تياو مو تالال كو مو دالتا لايو بن ولا بوب مبو يي نين ني جيتال كي سين بير مبو nga xamne buñ ko solé boo leen tiiree bal du daa du jàll ci mug ma lay yem nee na woor weeru koor pakk la bu mel noonu ci seytaane nee na ku ci woorati koor gi accès ku ci woor bum kaf bum ree bum ubbi ci benn jataay ay caaxaan kese ak i maye loolu nag télévision yi dañ ciy bokk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 neena gis ngeen xet gogou tax nit ñi wëlbatiku mo gëna neex fu fa yàlla mom xetug misk tek ca ne ku wóor am yaari mbekté yu koy yor melni mbekté ni moy ku ne xamna ni bis bu tàng ci wéro koor jant bi guddu suñ na dog jot na bo démé ci xolub nit ki ak bo fi demut da nga xamne ne na ndax yañ ko tara won yépp ya ca dagan yep ya ca dagan yep yañ ko yañ ko tere won tam dagan ko yep lay tàmbalee dagan ci mom fi ba ñu naan japp jotna na ga ca dess nak mi ngi leen di yor bis pinch ndax guddi koor ak gu wéru koor day am ku leen wétli si koor day ñëw na yalla ki day dama bëgg tin ma ci ndax bu wéru ramadan ma masaan ñëw wéru koor bi su ma masaan ñëw ma daan tee muy lekk ka naan ak a bànneexu waaye alxuraan ñëw ne ko bu guddee de man ñi man na ci seere ndax bu guddee maa ko daa tee nelaw ñun ñëpp nak suñ ko tino yàlla na lañ tin kon motax tax mu ne li saaimi farxataani yafraxuhuma ida aftara farixa loolu kenn nattaloo ko ñëpp tek nañ mën nañ ko teg seen bët waaye wa ida laqiya rabbahu farha bi sawmin